que defkatu ñawteef yi du ñu bàyyi dara. diwaan bu paas nii rek moo ci mujj am fii nii ma gis benn moto mu këpp benn saaga femme dawam moom gars yi bàyyi ko mu sedd mais mënoon nañ ko ko topp jàpp ko mais toppuñ ko ñu bàyyi ko noonu mu raw. li ñu def ne amul sens ku liggéey ba bëgg a dee ñëw jël xaalisam da koy saaga ba këpp ko yóbbu moom loolu baaxul yàq yaakaar la. loolu nag indi rek ci askan wi ndaxte agression yi dañ koy faral di amal ak violence. am na fi nag mais ñun làmb day amee Grand Dakar wala mu am Fass bu ñuy romb fii noonu la ñuy def suñu rombee am na kuñ fi këf mu yuuxu fi ak ñeneen ak ñeneen sàcc yi ñoom même jigéen ñiy romb sax dañuy dem ba marché si dem ci sàcc ñi nga xam ne nag ñoom ñooy dawalkatu moto cak-cak yi leen di faral di tudd ci jëf yu ñaaw yooyu waa ji moom yàgg na ci activité bi want nag mu ngi weddi bépp tuuma ñun jàpp nañ suñu moto yi suñu moto yi du pour këf quoi boo xoolee ba xool loolu noonu lu si gën a moto yi koy def ay ay moto Beverly ay oxyteurs yi ñoo koy def ñun suñu moto yaa ngi nii yóbbu kilaan wàccee rek la xam ñooy fii nii am na yeneen heure sax fi ñëwee duñu la nangu yóbbu parce que wóorul quoi. wàccaayu feetu tabaski nekk na itam jamono boo xam ni dañ ci nemmeeku agression yu bari ñi nga xam ni ñoom ñooy faral di dem ci bërëb yooyu nga xam ni day faral di bari nit wax nañ ni jël nañ bépp matukaay ngir mucc ci defkatu ñaawteef yi.